tey nag dañoo fas yéene waxtaan ak askanu Sénégal ci pàccoo bi nga xamante ne njiitu Crédit Mutuel du Sénégal yi ñu ngi koy pacco ak a yàq alalu kër gi umpule woo leen ne Crédit Mutuel du Sénégal diggante janvier 2017 ba juin 2019 nekkoon na ci li ñuy duppee administration provisoire ndax yorin gu ñaaw bi ñu demee ba juin 2019 administrateur provisoire bi fi nekkoon te tudd mbay jon ci boobule jamono mu daal di nommé kii di Amadou Jean-Jacques Diop mu di directeur général Crédit Mutuel du Sénégal Amadou Jean-Jacques Diop moomu wëlbatiku nommé Mbaye Dione directeur général de la BIMAO mbokk yi mu mel ne mbir yi ay seddante la. ñun waa collectif bi ànd ci ak mbooloom syndicaliste ñu jàpp nañu ne boobu la nomination wu Amadou Jean-Jacques Diop dafa waroo ak statut et règlement intérieur bu Crédit Mutuel du Sénégal ndax sunu ay charte dafa ne directeur général du Crédit Mutuel du Sénégal conseil d'administration bu union bi moo koy tànn ci mandat trois ans bi ñu bi ñu am sañ-sañu yeesal benn yoon ci kaw liggéey bu rafet waaye ba ñu tàbbee Amadou Jean Jacques Diop def ko directeur général ñi ngi koy jaaralee ci con contrat à durée indéterminée muy contrat bi ngeen gis nii te sama naataango Cheikh Ndior wax li ci nekk te muy lu ñaaw ci kër goo xamante ne askan askan bi moo la dénk alalam nga jël yow rek di Amadou Jean Jacques Diop nga nangu ñu lay fay huit millions en toute indécence nga nangu ñu lay fay huit millions ci alalu baykat yi alalu jaaykat yi alalu jaaykatu marché yi c'est inconcevable dafa ñaaw dafa tegginewul Amadou Jean Jacques Diop ak ñi mu àndal amuñu kersa amuñu complexe sénégalais yi c'est inacceptable bu nu ca jógee loolu maa ngi ñëwaat ci contrat bi muy une violation flagrante de danoo danoo nos de bu ñu duggee ci wàllu liggéey bi Amadou Jean Jacques Diop indi na fi contrat yu doy waar ci wàllu prestateur de service yi ndax am na ku mu signé contrat di ko fay 64 millions 800 mille francs pour 18 mois waaja ci contrat bi. ñaari fan lay xëy par semaine waa ñii ñii yab nañu sénégalais waaye ñii yab nañu sénégalais yi Amadou Jean-Jacques Diop yab na sénégalais yi c'est indécent c'est inélégant dafa sax jekkul te ka ko jox ña ngay wax ne xaritam la dafa sax ñaaw dafa sax ñaaw ay baykat di torox ci àll bi travailleurs yi di torox ci àll bi Amadou Jean Jacques Diop xoolul yàlla xoolul yonent bi amul lu mu ragal jommul def dara waaye lii du ngor waay ci janvier 2021 bii ñu jóge am na benn quotidien bu waxal technostructure crédit mutuel dans sa parution du 14 janvier 2021 waxal na technostructure bi benn scandale ci jaayum terrain ak ay police d'assurance ñun jàpp nañ ne tuuma bu ni toll suñu la ko tegee weddi rek doyu ci da ngay fexe noo àddoo ba seetal deru entreprise bi ndax dootul yow rek alalu sénégalais yi nga yor bu ñu la tuumaalee nu toll nu toll nii da war a àddu waaye ba ma ko ci interpellé en tant que délégué du personnel lan la wax j'ai décidé dana ne pas commenter ça parce qu'on m'impose pas ma ligne de communication waaw nee na kenn du ko imposer ni mu war a waxee ak nit ñi dafa préférer bañ a bañ cee àddu pour étouffer la rumeur ñun nag waa collectif ñu ngi dëggal nit boobu la tuuma am na fi ci njaayum terrain boobu te njaayum terrain boobu comme ni ko Cheikh Ndior waxee waroon na ak suñu statut ak suñu condition d'octroi de crédit ndax mënuloo jël benn crédit def ko groupe exception ci lépp nga def ko exception am na lu ci dul dëgg am na lu ci dul dëgg ñun nag mbokk yi amuñu lu dul crédit mutuel du Sénégal di suñu bërëbu liggéeykaay amuñu leneen. kër goo def ñaar fukki at 30 ans amuloo leneen lu dul loolu kër gi junni nit ak juróom ak ñetti téeméeri nit ñu ngi fii xëyee 1300 salariés 1 million 300 mille clients mi ngi fii ci kër gi Amadou Jean-Jacques Diop bëgg a tas kër gi duñu ko ko nangul nag. moom ak ay xaritam du ñu leen may ñuy tas kër gi ci jamono jii may wax ak yéen ñu ngi fexe nu ñu modifier texte yi pour yoonal seen jëfin yu ñaaw ñu nga ca Kaolack bëgg a soppi ay texte pour yoonal seen nekkin fii on ne règle une forfaiture par une forfaiture ba tax na ñun collectif ànd ceeg mbooloom syndicaliste crédit mutuel ñu ngi interpellé ministre des finance waaye li ko tiim ñu ngi interpellé commission bancaire banque centrale ak président de la république Macky Sall ñu ngi ko ci interpellé pour mu jóg jël ay mesures ci li nga xamante ne mi ngi mën nañ ko duppee musiba buy waaj dal Crédit Mutuel du Sénégal li ci gën a ñaaw nag mooy crédit boobu ñu joxe ci te achawu terrain bi terrain boobu moom la ñu wëlbatiku jël ko en garantie. ko donc ni mu demee waaw kaay ma jaay la terrain amuloo xaalis waaye man maa lay lebal xaalis comme man mënuma jël. mënuma jël 600 millions ci benn agence mënu ko mu ne xaaral ma def ko kooku financement tas ko ci Sénégal Koussanar 15 millions Koupantoum 25 millions feneen ak feneen mais comme yoon mayu ko loolu mu ne xaaral ma defaraat ay textes yónnee ko ci caisse de base yooyu fexe ñooñu ñu signé ko pour mu yoonal li ma def il s'est substitué aux caisses de base c'est insultant dafay saaga sénégalais dafay saaga sénégalais loolu nag dañu ne amul xàjj ak seen ndax li muy wax ay nit ñi dëppoowuñu ànduñu non soxlawuñu loolu tey euh, dina ma permettre ma wàcc ci benn kàddu suñu kilifa bu tedd kilifa gu tedd doon na wax ne muy alaaji abdou radiallahu anhu nee na bu sa gaal di diig bala ngay tal gaal euh, sa ëmb talal gaal gi ñun tey gaal gi lañu tal te gaalu crédit mutuel du Sénégal Amadou Jean Jacques Diop mi ngi koy suuxal loolu moo tax ñu woo leen tey yéen acteurs de la presse yéen sénégalais yi yéen administrateurs yi sociétaires yi tout le monde ñu ngi woo travailleurs yeeg ñëpp. ñëpp jóg parce que c'est un faux discours de dire non des organisations syndicales c'est un faux discours ça ne tient pas amuñu jot boobu na ñëpp génn parce que alal ji ñu ngi koy yàq na ñëpp génn parce que Amadou Jean-Jacques ak ay xaritam ñu ngi tas kër gi na dem na dem na dem a dem na